kon mbokk yi gis ngeen ko lii xew fii ci Bambilor kii di El ma Massamba jóob di góor goo xam ne que day jaamu yàlla di liggéey ngir dundam ba am lu jege téeméeri at nga xam ne que njabootam la tal ak liggéey ak jaamu yàlla wéy ci ndigal liggéey ba heure bii nag ay ñu kenn xamul fu ñu bëgg jóge bëgg ñëw teg ci alalam loxo loolu nag ñoom nee na duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg kii di wax ci seen kàddu di doomam di am sa Diop njaboot gi yëpp a nga fi teg ak ñi nga xam ne que teewuñu waa tund yëpp nii te lii luñ waajalun la mais yi ci kanam dina gën a garaaw ndax président Diomaye lan bëgg mu yëg li xew ak président Ousmane Sonko ndax ñoom ñoo doon njiitu réew yi nga xam ne que dañuy nekkal dëgg li ñëpp moom ñëpp jot ci euh, yoon am fi ak dëgg am fi kon jaay doole daf fiy jeex euh, sëñ sa Diop lan nga nu mën a wax defe naa li nga wax moom boo ko ku ànd ak xel rek dina mën a xam ne lii moom du yoon. bon nous la famille de El Hadj Massamba Diop on a été victime d'une spoliation ce champ, on l'occupe depuis 1993. Mais un beau jour, des gars sont venus embarquer le vieux pour lui faire signer une conciliation par le par l'intermédiaire du, du, préfet Abdou Khadr Diop. Bon, cet acte de, de, signature a été fait, bon, on peut le considérer comme sur la torture, une torture morale. Parce que le vieux, on l'a, il, a, il a quitté le vieux vers les coups de dix heures du matin mhm. il rentrait jusqu'à euh, vingt une bon de ce mhm. la famille n'est nullement d'accord sur la sur, sur la procédure mhm. enclenchée par les par, par, les autorités bon de ce fait nous inter, nous le président le président de la et les membres du gouvernement pour qu'ils avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous n'allons pas accepter cette procédure. Vraiment. On nous a délesté d'un bien. Mmh. Étant donné que ce, ce champ, on l'occupe depuis 1993, mmh. bon, étant détenteur d'un acte administratif, mmh. nous, nous, ne pourrons tolérer telle une, telle une, une, euh, euh, euh, procédure. Ah, bon salaamaaleykum ñun njabootu waa El Hadj Massamba Diop mm. ak ñeneen ñi nga xam ñëpp kii bi. dox nañ seen laal nañ leen ñoo dajaloo ngir leeral suñu li li liñ fi nekkee ndax euh, dañ ko awale ci yoon woo xam daal tee na suñu xel maanaam suuf si boo koy xool ñun dëpp ñu ngi ko yor depuis 1993 bon léegi ñoom xëy na benn bis. signaloo góor gi benn ak de conciliation boo xam ne préfet Abdou Khadir Diop moo ko moo ko kii moo ko jiite. Mhm. bon bi ñu ko signalee moom ba mu fay dem dix heures la fi la jóge ca kër ga ca vingt heures la ñibbisi ci mag moo xam ne am na quatre-vingt-dix ans mhm. waaw léegi na ñun njaboot an ànduñu ci tey ànduñu si ëllëg ñu nag ñu nag ñi fi dajee ñëpp nag ku nekk am nga ci wàll mhm. ñoo ñëpp ci dañ fi am te kii ku mel ne góor gi daam daam ñang moom bañ bañ laal suufam ba léegi moom dafa dafa dafa kii AVC sax mu jógatul waaw kon boog ñun président la ñuy woo fii acte ba mu jël fële kaat ak feneen feneen na ko na ko na ko jël fii bala fi dara di xew ñun kat ja lu lu leen jaral jaral nañu ko nañ jël nañ ñëw jël seen chèque ñu jëloon suñ suuf waaw wasalaam. nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu tey duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg déedéet déedéet du fi amee du fi amee xanaa ba kenn tëdd xanaa ba kenn tëdd xanaa ba kenn tëdd xanaa ba kenn tëdd fii suñu suuf si ci lañu suñuy bàyyi jere kon suñu suuf du dem tey du dem ëllëg dañ ñu dañ defal ñu koy yóbbu ñoo rey ñu dee ñun yiñ des dem nañ ba kuy dem ba natt suuf dërën dërën nga koy natt suuf dërën kon kay nekkoo ci yoon hmm. waaye ñu jox dimbali leen ñu ngir yàlla ak yoon ti bàyyi suñu suuf si ñun moom la ñuy dundee nekk lu ci nekk lu ci ay ay ay ay lu ma xëq lu ma la tuuti bureau nekk lu ci bureau ñun suñu suuf si la ñu am suñ gis ngeen gàncax gi mooy li la ñu béy di lekk. Mm. su seeg nawet yeeg yooyu la ñuy dundee.